xam abdourahman moo di sun jamaa bayna urbin wa min ajam am na xam-xam baraw ci maasam koo ko takkalee bisu pëndam képp ku ñu wax ne yaa di moom tolloo ko ci tatuwe abdourahman jëm ci yónneen te mooy jëfam jëm ku baax lool tam xabul lépp lu mu ñaan mu dal am fa yaa xajaban li sayxinaa cerno xam-xam de mooy dundam li yinaa di ak keram kaw sara moo di am ndoxam alquran moo di ay waxam muhammadun rasulullah moo di wéttalam sëriñ bi mu ne bëggoon na dugg ci sunu sëriñ ci ñaari baat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 gannaaw daf ne la dalee ci yunti yàlla aadama ah sëriñ bi mu ne dëgg-dëgg xam-xam a ngi foofu ne ak ba mu ne wakaa mu ne wakaana aadamu baynal maa i wa tiini sëriñ bi mu ne laajoon na ko ko démb nag moom ustaas boobu lee mu ne ko xaw ma de sëriñ bi mu ne foofu nag xam nga ne neexuta romb de xaw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 سرين من الحمد لله رب العالمين سرين من بيونتي على محمد نك دك دك دك تيفي أفوا آه، فلا يونتي على محمد جري لبني جنا مون لب سرين بمونة شوف كيف وافلا لينين أمو فني الله أكبر سرين بمونة جنا ولينين أمو فا فوفلا جني لب ولا جني رك مو جن نخ لبو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 su préfet bu bokkal sëriñ bu ne la waxon démb rek léegi moom dëkkandoo la mbokk la sëriñ bu ne way bu doonu ton lolu démb bi mu ñewé ci cérémonie officielle bi loolu moo ko waroon a def lolu moko warona def nako su boba jeex na sëriñ bi mu ne way legi mbokk gi moo ko lonk mu ñëwaat tey ndax waa boggal yëpp ñëw ne toog moom la waa boggal la mu ñëw toog sëriñ bi mu ne jërëjëf Fatick waay sëriñ bi mu ne kontaan nañ bu baax sëriñ bi mu ne ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla teewelee ay déwén yi déwén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 سن في نيانا يلا رك يلا داي نانغو والله داي نانغو صح سيرين بني الحمد لله رب العالمين سيرين بني الله يا جاتاي غودونا لول واي نيغي دولي سات يلا بو باخ فتنه داي نلو الفتنه النعيم سيرين بني يلا نانغو مودي يننتي بما واخ ني يالنا ربنا كوكاي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 nga xam ne yàlla moo la mayoon jox na keneen suñ la gañewul ñu xam ne it yàlla mi la joxoon mu la koy bàyyi ba léegi sëriñ mën a wàtte nañu dajee def fitna nguur wóoluwuñu ko bu nguur koo xam ne ci fitna lañ koy amee di ko wóolu bu boobaa yi ci fitna lay jeexee ni te suy jeex su boobaa yow ba ko foqati woon fitna bi mujj ci sa lay yem sëriñ mu ne kon nañ góorgóorlu bu baax tënku ci luwaa ndax luwaa ñoom borom xam-xam seeni réew tànn leen ci gox nekk am ku ñu fa tànn ñoom ñooy dajee ci mbooloo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 Abdourahman moo di sun jamaa bay na urbin wa min ajam am na xam-xam baraw ci maasam koo ko takkalee gisul ko tam képp ku ñu wax ne yaa di moom tolloo ko ci tatuwe Abdourahman jëm ci yónneen te mooy jëfam jëm ci yónneen te mooy jëmam mooy ku baax lool tam xabul lépp lu mu ñaan mu daldi am fa yaa xajaban li sayxinaa cerno xam-xam de mooy dundam li yinaa di ak keram kaw moo di am ndoxam alquran moo di ay waxam muhammadun rasulullah moo di wettalam